ربي بما يزرع الأذان قد فجاء بجاه أهل من لله قال جاء ربي بما يزرع الأذان قد فجاء بجاه asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan fu ngeen mën nekk ci biir réew mi ak ci bisim réew nuyu nañ leen ziar leen rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides euh, ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñaanal ko it mbooleem kilifa yi dina yëpp mbokk yi ñu ngi fii ci Kaolack ci sortie bi tey lundi dëppoog le 24 janvier 2022 di bis boo xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir euh, mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides ni nga xam ne noonu la koy defee at mu jot ci wàccaayu ku màggal poroxaan gi di màggalu soxna jaara gi war a doon jeudi 10 février 2022 ca poroxaan loole nag sëñ bi ci jéego yooyu la nekk ba tax na mu fas yéene dem ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di poroxaan at mu jot nag bu dem ca poroxaan day jaar fi nga xam ne moom moo di ci dëkkub euh, Kaolack ci biir euh, dëkk bi ci Kaolack euh, ngir amal fi ak ngan goo xamante ni dina fi def ay fan ngir fas yéene saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi waaye it euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, daayira yi maam jaare yi mën koy euh, ziyaare waaye it mu am fi ay fan saafonteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack ndax Kaolack dëkk bu cosaanu la Kaolack dëkk boo xam ne la dëkkub diine la ndax ku kenn fàttewul Serigne Bassirou liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey na ko ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Kaolack ndax ki nga xam ne moom moo di doomam ja muy Serigne Moussa moom Serigne Bassirou nga xam ne moom moo fi nekkoon ci pencum Serigne Bassirou liggéey fi liggéey bu am solo ànd koog mboolem njaboot gi tey ji euh, Serigne Cheikh nekk fa moom it ànd ak njaboot gi di ci def liggéey bu am solo kon euh, loole ci wàccaay woowu lañ nekk ñu nekk fi nag ci sorti bi nekk fekk euh, Serigne Babacar Mbacké moom Serigne Moussa ñu gën koo xam ci Serigne Babacar mu kabaro ànd ak mboolem taalibe yi ak yeneen kilifa yi ci njiital ki nga xam ne moom moo di El Hadji Seyni Seck mi nga xam ne moom moo nekkal xalifu général des fii ci diwaanu Kaolack lépp rek ngir euh, tertu gi ngir waajal euh, ñëwug sëriñ bi fii nii ci Kaolack ngir def ko ñëw goo xamante ni daañu xam ne bu baax a baax a baax Kaolack am nañ gan te it dëkk la boo xam ne dëkk bu euh, mën gan lañ. kon mbokk yi incha allah fii lañ fas yéenee ànd ak sëriñ bi bu agsee ñu ànd ak moom ak ni nga xam ne noonu lañ koy tertoo ñu fas yéene dem ci pencum sëriñ Basiiru ca kër gi nga xam ne sëriñ bi fa la fas nekk ci diirub fan yi nga xam ne moom la fas yéene am ci doon Kaolack kon mbokk yi ñu ak yéen ci convoi bi. bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa bi fiika yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad li fiika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 أتيت به لسأت بسكريا يا خضار يا الله خاف لي رديئة دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فخمس ألاتي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 الفتاء يا الله علمت للقيبات تعثت منتميئا أتى الأليم لاسيم علمت يا الله خبرت يا قابل أسعى وانصرفت لخير نبياك الأدار يا الله بزار بيت الأمال لي بريدا فاذكر مباستتي دارين يا الله بسرت يا باست الأعمال لي بريضا فاذكر مباستتي دارين يا الله قبلت يا قافل أضاء لي وما لو لخير نهري بقصد منك يا الله رضاك يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رضاك يا رافع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 خلال ويسا واحد بل فيك يا علام عسى المسل لاسي سلالي ستي الانس والجن سيطان يا الله انت سميع لاسي ناجت سمانا وبالمصارات لي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 لخوت فلن أزي من منك يا الله الله الذي لقد مغفرة معك يا برادي تعنك يا الله أنت سكر الذي كلي لديك ريدا ولي سكر تجمي asa yi yàllaaw alaalali yulaasi ahlaytani abadan bi xayri makrim wadim alal tax yàllaaw alal kabiru laasi baanat kabaaratu لي خطفل لي خط من ككبي على الأجر يا الله أنت الكبير الذي بانت كبارته لخط من ككبي على الأجر يا الله أنت الأسيس الذي وجاءت في أباد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 ak xaas bi mu ci boole moom moom moom rek la lii de lii mooy moo ko peñal maanaam mooy mandarga bi ñu ko mën a xamee noonu rek laa ko mën lii mooy mandarga mi ñu mën a xamee eh, dëgg dëgg tawfeex ji sëñ Basiru am ci suñ bi ak xaas ji mu ci am loolu <laughs> ah, nag tawfeex ji ak xaas ji nag ñun ñëpp noo ngi ci biir waaw <laughs> ah, non la dana sant nañu bu baax a baax sant gi sant gi moom amul amul fenn fu mu yem loolu ca ca ca kanam borom la ñu جافة منك لي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا تتوسئات بالإبقياء الله أنت الأكيم الذي أبلغتني لسوى مصائبي وما أو تسوء يا الله